waaw salaamaaleykum wa rahmatullah gars yi maa ngi ziare ñëpp di leen wàcc seen wàccuwaay man la bëgg bàyyi bañkat waaw gars dama bëggoon ñëw rek xam nga def benn live bu ndaw rek bëgg ku dugg nga partagé ko pour ñuy waxtaan xam naa ne buggaan gay dali lay live bi di intéressé Bougane Gueye dañ bëgg a waxtaan pour wax ci Bougane Gueye mi nga xam ne temps yi mu ngi song président Ousmane Sonko bu baha baha. baax ah ta lim koy songu yep songu ko ci xam-xam ludul dul bëgg buzz ak ah, bëgg nit ñi déglu la bëgg nit ñi naan bugaan bugaan duguna fi genn fi may wax na ñun sénégalais yi dañu wara yew ah lutax ñu wara yew moy eh, il faut ñu xam ben affaire na Ousmane Sonko kenn ne mom rek mo fi opposition Ousmane Sonko kenn wu né mom rek mo fi leader jamono ji Suma suma yébone sax Ousmane Sonko sax jamono ji mën nañ wax né moy président Sénégal ñeneen ñi ci dess ñep ay opposition la nekk ci ginnawum la nekk ci kawum parce que attaque dana jógee ko fu nekk gaay dañ ko songé côté bu nekk. lool nak il faut ma indi ci léral pour war kan moy Bougane gay ah gaay Bougane daf ma bét man man bëgg parce que am yenn wax ne yaakaaroon ne. soldat yi dugg ci mbënd bi yóbbu ay moto eh, pompe. ay litre essence. enveloppe dul jeex. ci ci <laughs> la nga joxe. la de. joxe. <laughs> war a joxe. boo mënul joxe da ngay kan wax da ngay wax. waaw yow kan moo la wax ne dañoo woo Sonko pour mu ñëw joxe Sonko kenn woowu ko foofu Bougane Bougane Sonko dafa jóg comme nim laan jiitu mi di seeti sénégalais ci seen jafe-jafe ak seeni songko Sonko du mbënd mi rek moo tax mu jug dem sonko ya na di génn di défendre nakaru sénégalais yi di défendre tiono sénégalais yi sonko yàgg na di dem di séti sénégalais yi sonko ya na di dem ci hôpital yi di maye dérèt sonko yàgg na di taxawu sénégalais yi fo nekkul bugaan bugaan depuis bu yag ba ba légui depuis ba élection yi passé ba légui kenn déggu la yow gay nga dem ba yi mbënd ñew nga gis na sénégalais yang ci ndox mi nga daw jël sa ay ñett moto pompe ñaari moto pompe dem jox pur pour nit ñi na waaw Bougane Gueye fi gën parce que joxe na lii joxe na lii gis nga genre politique boobu genre politique boobu day jeex Sénégal parce que sénégalais yeewu nañ parce que xam nañ ne da ngeen koy def mais defu leen ko pour dindi nit ñi ci mbënd bi defu leen ko pour gëm Sénégal defu leen ko pour da koy def pour am buzz pour nit ñi bëgg leen man leen topp pour ëllëgee ngeen man cee nax sénégalais yi ba watee loolu day jeex loolu du jàll Bougane Gueye Bougane Gueye dégg naa la ngay songu Sonko mais Sonko mo la gën juddu sonko mo la gën parmarès sonko mo la gëna set sonko mo la gëna a yow Bougane gay, ndax yow Bougane gay ñun sénégalais yi xam nañ la dembu tay soog ñew parce que nit dañ koy naté ci parmarèsam dañ koy naté ci jar jaram yow Bougane gay sénégalais yépp sen jar jar umpul la motax soy tekkale sa bop ak Ousmane Sonko ay ré ngay def ni ëpp ci sénégalais su fekkee da ngay taxaw di xas Ousmane Sonko dañ lay wax li nga xam ne moom la janax waxoon bañ koy poser question na ko ndax muus xam nga muus bu baax xam nga janax dañ koo teg di ko laaj muus ndax yow janax maîtriser nga muus est-ce que xam nga muus bu baax janax na janax na tontu ne ba ñuy dajee ci ruq bi jot naa koo seetlu mais jotuma koo xool bu baax yow loolu moo la dal yow Bougane Gueye dama foog ne jàngatoo Sonko ak joto xol sonko bu baax parce que dang ko tit ba nango dajé ak mom gis nga gis nga Ousmane Sonko Bougane Gueye pour mu leer sa bir bop bi Ousmane Sonko président sénégalais la jeunesse bi nga xamne dañoo conscience yew xam fi ñi deug sen tank barké alcorane keur ñepp ngi ci ginnaw Ousmane Sonko yow Bougane Gueye dali sa parmarès lepp soko xolé ñi ëpp ci sénégalais yi ñi ngi taxaw di wax na yow Bougane Gueye dali sa alal ji nga yoré dang ko loubal parce que alalu sàcc mom nga investir di ci liguey alalu jambour nga teud muy alalu senegal dégg naa dama dégg ay nit ne yow ngay sa alal ben way mo lan djel khalisam diko denk ben serigne serigne bu mak Senegal, serigne bi di djel khalis bi di lako denk dénk yow Bougane ngay serigne bi genn aduna khalis bi amul facture nga teud ci khalisu jambour Senegal, yépp mom lañuy wax kun ci alolu jambour ci nga teud te képp ku teud ci alolu jambour yowmal xiyam da nga taxaw ko ak sa borom parce que alolu jambour du alal bugaan gay yow bugaan gay yow samba alar nga ci mbedd mi ngay bax mais do bax ci biir parce que télé ba nga nek diriger ko nit ñi dañuy ñaxtu ci mbiram salaire sa employé respecté woo leen sa télé bi télé kat la yak senegal ci ñu yak senegal sa télé bob ci la bokk dégg nañ nga wax bané Ousmane Sonko ah, invité nga ko sa télé ñu bëgg ci tëj sa télé gan ngay dali da waxoo dëgg yow sa télé bi da nga loon victime jour di wax sénégalais né lima invité Ousmane Sonko motax ñi bëgg a sama télé bi mais loolu du bu gan ngay yow sa télé bi xéssal bi nga xamné dang ko doon publier sa télé bi mom lañ la interdire nga bañ ñu bëgg tejj sa télé parce que so gëmon sa bop xam Sénégal réalité yi xam ni Sénégal di doxé yow bugan do taxaw di sa ay xéssal ci sa télé doomu Sénégal yi di ko jël di ci yaqo kun so bëggé taxaw na yow da nga gëm Sénégal da nga gëm sa bop ñun Sénégalais xam nañ la gëmo Sénégal gëmo sa bop yow li la ñor moy sa intérêt personnel ya yu sundur 6 ak 9 ngeen ben ngeen li taxoon a jóg mo la tax a mais li jallon ci Youssou du jall ci yow Bougane gay président Sénégal mom mëno ko nek président Sénégal mom do ko doon mom ci aduna lenn kañ mom ngay tandé moy li sundur am mom ngay tandé pour am ko mais li sundur am mëno ko am parce que xam nga la moo tax jamono yi ñoo nekkul benn jamono yi Youssou Ndour ba muy nax sénégalais yi di ànd ak Macky Sall ñiy falu boobu sénégalais yi Ousmane sonk ñëwagut parce que boobu Ousmane Sonko yeewagul conscience u nit ñi mais jamono jii dañoo yeewu parce que Ousmane Sonko dafa wax ak ñin li Ousmane sonk wax ak ñin ñi dem ci mbind Cheikh Anta Diop fekk ko fa dem ci mbind mbindu du Dia fekk ko fa dem ci mbindu Thomas Sankara fekk ko fa ñi xam ne loolu mooy dëgg kon Ousmane Sonko mooy patriote bu mag bi Ousmane Sonko mooy leader bu mag bi moo tax Sénégal yëpp ko ci moom Sénégal yëpp jàpp ko di ko xeexal di ko dimbale te dërëm fayul leen ko Sénégal yi di yëkkati seen xaalis di ko jox président Ousmane Sonko na ko jëlal nga wate demal demal nga posé candidat pour nga jël Sénégal président bu ñuy financé ba Senegal soso ba léegi mu ngi sok di am ci ben jëm muy président Ousmane Sonko gan Gueye dali nga ne Ousmane Sonko du joxe nga ne Ousmane Sonko du joxe Ousmane Sonko de satchu alalu réew mi ba diko ko pasar yeen de li ngeen di joxe ni li ngeen di joxe ni ñakoon joxe moko gën parce que yeen ay sàcc ngeen alalu senegal ngeen sàcc ba paré di wër di pasar passaré naan ah, da ngeen koy jox Senegal yi satchi sama alal ba paré ñëwaat nan da ma koy may te li may may man sama alal la ya ko satchi loolu du maye loolu du maye loolu naxaate la gis ngeen seen naxaate yi ngeen di def di manipuler askan wi ngir am ngeen télé ci réew mi wala am ngeen rajo ci réew mi di manipuler Sénégalais yi bëgg dox ci kaw Sénégalais yi bëgg a nit ñi di leen gëmloon na yéen yéen a baax Ousmane Sonko baaxul loolu Sénégalais yi mënuñ koo gëm parce que ñun depuis ba élection yi jàllee ba léegi. Ousmane Sonko la ñuy gis sur terrain Ousmane Sonko la ñuy gis muy dénoncé Ousmane Sonko la ñuy gis muy xeex Ousmane Sonko la ñuy gis muy dénoncé lépp loo xam ne naqaru Sénégalais yi na looloo tax Sénégalais yi bëgg ko parce que ba mu jafee Ousmane Sonko lañ gis ba mu méttee Ousmane Sonko lañ gis yéen nag Bougane Gueye Dany dem ngeen ba xam ne Macky Sall léegi mu daanu parce que ñu ëpp ci Sénégalais yi bëggatuñ Macky Sall ngeen xam ne mbir mi léegi Macky Sall daanu na léegi yéen élection ngi jub si ngeen ne ku nekk génn ci paxam di sek gennu budde fini ni bugan gay mo genn commencé nak di tankal sénégalais yi amoo xam-xam yow bugan gay dali jango jongo li la biri ma wax rek mo moy deug yow bugan gay dali barki Demba Ndiaye soixante mille nga lon fayeku nga jek jek nek milliardaire Sénégal ban salaire mo fi may milliard mais salaire 60000 man na may nit ay bugan gay dali wal Walfadjri nga nekkoon di fayeku 60.000 nga jékki-jékki nekk milliardaire ubbi télé ubbi rajo lépp yow Bougane Gueye dañu la war a auditer yóbbu la sur la table tëj la ci kaso yi parce que yow mérito nekk fii nii parce que alalu Sénégal ci nga tëdd dafa war a leer ay sàcc ngeen yéen ñëpp parce que salaire u amul Sénégal waaye nag lépp dana feeñ incha allah ci kàttanu yàlla parce que sénégalais yi yeewu nañ sénégalais yi xippi nañ seen bët ngeen xool yéen réew mi rek moo leen ñor mais Sénégal ñorul leen. ñun xam nañ bu baax li ñuy wax gis nga président Ousmane Sonko ñun toppee wuñ ko xaalis ñun toppee wuñ ko joxe Ousmane Sonko li gën la joxe li gën ci nit la joxe xam nga nit lan lan nga mën a joxe ñëpp bég ci muy sa ngor ak sa jom ak sa gëm yàlla ak sa am yéene bu rafet sa biir réew loolu lañ soxla ci doomu aadama bi ci réew ba pare mais yéen joxewu leen seen ngor ci réew mi joxewu leen seen jom ci réew mi joxewu leen seen dëggu ci réew mi joxewu leen seen gëm yàlla ci réew mi su ñu waxee su sénégalais yi nekkee ci coono ngeen bëgg a jël di profité ci coonoom sénégalais yi naan da ngeen di joxe ay moto pompe pour mën cee amee bës loolu du jàll Bougane Gueye Bougane gay xoolal seen TV googu nga mën a jiite mais Sénégal mënoo ko jiite quartier sax doo ko jiite Sénégal. ñin sàcc duñu lubal luubalkatu alalu rew mi duñu jité suñu waxé nak ngeen di utee ci président Ousmane Sonko yeen Ousmane Sonko bukan ngeen ci ut ñin xam nañ lépp gay Gueye Bougane Gueye rek genn di wax kenn duko ko mais fokk mu cokkaas Ousmane Sonko xam nga ko pour mu am ci bës li mu commencé nek ci di kalaw kalaw yi mais na la xamal leen gis nga Ousmane Sonko Bougane gay dali laajal ñuko ko cokkaasoon sen matul une semaine. une carrière matul deux mois ki ko ko laaloon cokkaas ko pour am ci un da nga mujj fay ni keri laajal gars man maa la wax man bëgg baye ki suñu président la dañ koy ñaanal guddi diko ñaanal bëccëg soxlawuñ ci mom mu jox ñi benn dërëm soxlawuñ ci mom 100 francs xam nga lan lañ soxla ci mom moy ñu denk ko suñu rew jox ko suñu budget xaalisu rew mu tabaxal ñu suñu 2024 lañ soxla pour jox Ousmane Sonko rew mi ñun loolu lañ soxla ñun loolu lañ soxla gis nga mbënd mi mbënd mi nga demoon joxe fa un milliard taxul mbënd mi jeex parce que mbënd mi ñu ko war a defar ñu ngi ne ñong ñoom lañ lañ war a waxal ñu defar ko parce que Macky Sall su liggéeyoon tey mbënd du am Macky Sall su defaroon dëkk bi tey ndox mi du taa ci mbedd mi du du sonko sonko indiwu fi mbënd mi bugaan gay dal yow sax indiwoo fi mbënd mi mbënd bi Macky Sall ko war a liggéey parce que mooy président Sénégal moom lañ fal nga naan ay da ngaa war a joxe joxe woo dem di wax yow joxe ba pare ubbi sa làmmiñ di ratatati yow joxe boobu sax yàlla du ko gërëm yow joxe woo sa ngor joxewoo sa jom joxewoo sa patriotisme joxe woo dara lu dul ñaari groupe yow ñi ngay jox ñi ngay jox groupe yooyu sax amuñ essance bu ñu jëndee pour ngàcc ndox mi wala suñ ngàccee ndox mi fan lañ jëmee ndox mi jubluwu leen ci dara lu dul bëgg dox ci maayanu sénégalais yi bëgg a bëgg a nax sénégalais yi pour mën a falu Bougane Gueye Dany loolu du jàll barke rasulaay duñu la wàcc déclaré nañ la guerre nag chaque jour ñu ngi sa kaw ci lu amul sikki sàkk barke alxuraani kërim Ousmane Sonko <clears throat> képp ku ko laal jeunesse su Sénégal bi danañ génn jàkkaarloog yow xeex ak yow ba nga dellu ginnaaw parce que Ousmane Sonko duñu seetaan li ngeen réussiroon ci Mamadou Dia ngeen réussir ko ci moom duñ seetaan li ngeen réussiroon ci ci ci ki Cheikh Anta Diop ngeen réussir ko ci Ousmane Sonko duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëllëg danañ jug di ko défendre parce que suñu leader la parce que Ousmane Sonko ñin mom la yaakar pour mu défar Sénégal parce que yeen yaakaratuñ leen parce que ay naxaté kan ngeen ay tapalé kan ngeen ay sacc ngeen suñu waxé nak ngeen naan ay ah Sonko lan la def Sénégal Bougane Gueye am na fi télé Bougane Gueye am na fi rajo Bougane Gueye suñ ko auditeur tëj télém Bougane gay 2000 kañ kañ kañ la fi loon Bougane Gueye di fayeeku salaire soixante mille Birima taxaw wax ko ko weddi wut mu jékki-jékki nekk milliardaire sàcc la salaire u amul Sénégal dañ leen waxante dëgg te yàlla tax salaire buy maye ay milliards amul Sénégal milliardu Sénégal ñu ci ëpp waxuma ñëpp de mais ñu ci ëpp ay sàcc lañ milliardaire u Sénégal yi xaaj bi xaajaat bi yëpp alalu réew mi ci lañ tëdd suñu waxee ñuy tabax ay rajo di ubbi ay tele nit ñi naan waaw waaw diw kañ ah, dañ koo ñaanal ñaanu xaalis ñaanu xaalis fan la am man am na ñu ma dégg sa ñaan bugaan gay dali dañ koo ñaanal ñaanu xaalis ba ngeen juddoo ba léegi mos ngeen a teg seen bët benn ñaan gu ñuy wax ñaanu xaalis ñaanu xaalis amut xaalis banque mondiale koy liggéey xaalis ay këyit la mos sa wàcc si asamaan ci daanu suuf mënuñu laa ñaanal ba sa poos fees te doo liggéey xaalis ñaari mbir ko mën a maye ngir daan sa doole ñàkk wala nga sàcc lu rek mën a maye xaalis te suñu réew mii ñu nekk nii liggéey mayewu fi xaalis sàcc yi ñoo am xaalis ci réew mi luubalkat yi tëggkatu wëndeelu ñoom ñoo yor xaalis bi ci réew mi barke rasulullah yi loolu laay wax Bougane Gueye Dany pour mu bàyyi ci xelam Ousmane Sonko du sa maas du sa masandoor Ousmane Sonko bokku leen yàgg Ousmane Sonko mu ngi mel ne xalaat as yàgg Ousmane Sonko comme passeeg dayu bëy bokku leen yàgg Ousmane Sonko bokku leen école bay bokk classe bokku leen sax école ak classe bougan gay Ousmane Sonko kooku ñin suñ koy xayma dañ koy xayma manam l'homme de solution ko xam dafa ñew pour sauver Sénégal ci jafé jafé bi mu nekk yow yow bougan gay élection yi passé mais yow bougan gay xam nañ ni mu demee coalition suppu kànja bi ci nga demoon muy coalition bo xamna ni tay tey sañta bañ la muy coalition Idrissa Seck bi so ñewon sax nako Idriss sek suma so falo nga jox ma premier ministre sax mo na la jëlal parce que idi falu rek la bëggoon sonko nak falu jarul lako mu sacrifice Sénégal parce que yow séti nga sonko mais nanguluñ la li nga bëgg séti nga Macky Sall nanguluñ la nanguluñ la li nga bëgg nga dam wiri ci Idriss sek mi nga xamné mom bañu dara ta bañ mom na falu rek na falu rek même suy péré Sénégal def ko ngatu seddo ko sax na falu yeen lool ngeen gëm genre politique boobu dafa xeewi politique patriotisme moo taxaw léegi ndaw ñi yeewu nañ gëm nañ seen réew gëm nañ seen bopp barke alxuraani karim dañ leen yóbbu retraite képp ku bokk ci système bi da nga jógee ko ci système bi dajjee ko ci système bi Bougane Gueye Dany fii mënoo fi naanee ñeex amoo xam-xam jàngoo teeyoo defoo attention da ngay tëlli tëlli rek di dem parce que ba nga duggee ci caay Ousmane sonk nga war a xam ne ay yembu danañ la topp barke alxuraani karim yow Ahmed dara rek nga mën a nekk patron Ahmed dara rek nga mën a nekk patron yow seen TV boobu rek yow Bougane Gueye moom nga mën a jiite mais Sénégal mënoo fi jiite dara yemal ci say emploi nga yem ci sa tele nga réglé ko bala ngaa génn naan da ngay réglé Sénégal sa télé bi réglé woo ko réglé woo say emploi xamoo fooy taxaw yàgg sa télé ah chaque jour yaa ngi fi nekk di yow Bougane Gueye yow yow yow yow non man Sénégal dafa neex waa ñow Sénégal mooy dëkk boo xam ne golo gu jug rek di calli calli xam nga songu Ousmane Sonko di ut buzz nit ñi di la partager sa télé bi di la défendre gars yi di la débat di la ubbil ay débat ñiy wax na yow Bougane Gueye Dany Bougane yow xam nga xam nga Sénégal moo neex xuwaa barke alxuraani karim golo gu jug ne damaa bëgg a yor réew mi eh, commencé ah yow setoo seetloo ah sa nga ba pare naan da ngaa bëgg a yor Sénégal di tëkkale sa bopp ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko lim joxe da nga koo joxe yow Ousmane Sonko lim joxe barke alxuraan kërim ñeme woo koo joxe yow waaw wow 15 ans impôt et domaine zéro faute teg ko ci yoon liggéey ba xëy jugee koo impôt et te amul benn dërëm buñ ko toppee yow suñ la auditoon léegi kaso nga jëm yow Bougane Gueye suñ la auditoon léegi kaso nga jëm. nga taxaw fi naan Ousmane Sonko dugg na fii Ousmane Sonko génn na fii yemal ci sax Ahmed Aydara boobu Ahmed Aydara sax maa ngi koy jégalu bu baax parce que Ahmed Aydara patriote la waaw Ahmed Aydara moom patriote la moom dafa nekk ci Bougane rek mais moom patriote bu mag la waaw moom dëgg lay wax waaw kook moom nice quoi comprendre la may expliquer ni mais dañuy bàyyi wante xel ñi xam ne bugaan Gueye temps yi dafa bëgg buzz si Ousmane Sonko chaque jour mu ngi génn tey génn na wax démb génn na wax yow nit ñaa ngi négocier di am lu ñuy seet nga génn di takk rajo yi di mbel mbel yi bëgg a tànqal sénégalais yi xam nga bëgga a tànqal sénégalais yi may ñu jàmm yow Bougane Gueye fii kenn du la fi fal parce que tekki woo dara ci réew mi tojoo fenn tojoo fenn ngay tëll tëll naan Ousmane Sonko nee Ousmane Sonko nale ñuy wax ngay dem ndar naan ay nono, ah wa ndar kanaa yow bala nga dem ndar ah yow ya, ndar muso fa def dara wa ndar yep taxaw nañ wax ko deglu len fi ma tegal len benen video assalamu alaykum oki assalamu alaykum gay partager len ko mu gëna yaatu. ma ngi siyaar ñëpp ku ci ne ci ak ci santom sen dom sen rak sen mag gas El Salvador tay mo ñëwaat ci deuxième rubrique li nga xam tane moy cadeau askan wi. mu nekk ay xel mu sell yoo xamante ni bëgg nañ ko partager ak yéen. gars yi déglu la ne partager la ko mu gën a yaatu parce que xam nga bugaan ngay dali. donc ndar yi nga xamante ni yéen ngi may dooleel. naan gëm sa bopp yow gëmoo sa bopp. partout dans le monde tey dañuy entrer vif dans le sujet muy le cas de Bougane Gueye Dany euh, ñu gis que fi démb ci ndar mu ñëw di profito waale ci situation. inondation bi pour di defaale li nga xamante ni moom mooy politique mooy li may wax keroog. laay waxaat. Sénégalais yi yeewu leen. ñi nga xamante ni dañuy politiser ay naqaru jàmbur. Mhm. dañuy politiser ay méttitu jàmbur. wallaahi tey depuis élection yi bi passé ba léegi kan moo gis Bougane Gueye Dany. kenn gisu ko fenn ci paxam la ne woon coronavirus bi ñëw na ba jàll. kenn déggu lu ne def nañ ko fi autorité yi lu ne génne nañ ko fi. sensibilisation maye masque tout ça. kenn déggu ngeen gis Bougane Gueye Dany. déggoo muy woon ci paxu kañaam. Euh, moom dafa am kers sax. wax ni Saint-Louisien la. billaay doomu ndar yi soxlawul ñooñu ñun soxla mooy. Mhm. saint yi nga xamante ni yàlla da leen may teraanga ñu ñëwaat ci base bi ñëwaat. waaw partage rek na gën ñëwaat fii pour dimbali jeunes yi ñëwaat fii nii. alhamdulilah pour dooleel ndar pour defaraat ndar mais Bougane amul doomu ndar bu mu dimbali. fii xoolal loolu rek. lan la fi am lu dul benn rajo tey amul kenn ko xamante ni mi ngi liggéey ci rajo boobu noonu gis ci boppam amaana sax. moo tax lu naan léegi mu tëj rajo bi parce que affaire bi itteelu ko liggéeyal ndar itteelul Bougane démb ñu gis ko fi muy ñëw ci koñ yi di fa jox ay ñaari bouta pompe ak ay benn somme miette boo xamante ni di ko partagé ak population bi ñuy tëb di dal nañu bàyyi naqaru nit ñi ñi ñuy nañu nañ bàyyi naxur nit ñi ñu politiser dañu wàcc di participer ci dëkk bi parce que ay citoyen lan am na ay doomu ndar yoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi te fu ndar soxlaawee ñu gis leen fi tey yàlla may na ay terrain ah, gis ngeen Bougane de gis ngeen nee na moom waa Ndar la ko moom Bougane léegi waa Ndar ma suñ ko gis mosuñ ko teg bët bàyyi ba mbënd mi ñëw mu ne day profité ci waa Ndar commencé di jéem a teg xel non man Sénégal moo neex waa barke raso genre politique boobu ba léegi sénégalais yeewaguñ ci quoi man lan moo tax Sénégal yi mënuñoo yeewu ci genre politicien yoo xam ne nag dañuy xiifal askan wi ba askan wi xiif askan wi sonn ñuy profité ci coono askan wi di jéem a xam nga jàllale seen message xam nga yooyu la sénégalais yi war a nand ñii gëmuñ Sénégal muy bugaan ak ñoom ñii ñëpp amul kenn ku ci gëm Sénégal amul kenn kenn kenn kenn koo xam ne gëm na ci Sénégal déglu leen fii nii Birima ak bugaan. ma commencé li ñu wax man am na man ah doo xam dara mu ci mais li a commencé mooy. dégg montrer sama déception ci nawoon naa ko man bokk naa ci ñi ko njëkk a xam parce que dañoo dëkk à Saint-Louis dëkk bu fi Mélenchon fay ñëw maa ngi dëkk maa ngi dugg Saint-Louis 1993 maa ngi ko xam bi mu nekkee rajo Golbert Diagne xëy na mu sax rajo fàtte na ma. la nekkoon rajo Golbert Diagne. mu nekk nit ku jóge fu sori liggéey. réussir am na jékki-jékki rek nekk milliardaire mérite man na woon ko ndax loolu trop. Eh, Sénégal mais fan yi li ma dégg mu koy génn ci gémmiñam

bi mu rencontré Macky Sall fan la jaar ba rencontré Macky Sall. lan la def pour Macky Sall recevoir ko. <laughs> non man mii di wax ak yéen. waaw triant la quoi moom ci woon directement. <laughs> non nga magum jiwal bu mag ci réew mi ku baax. Sénégalais yi lay teg xel quoi bugaar moom. s'il te plaît jërëjëf xam nga xam nga euh, je sais mais c'est pas le débat xëy na dinañ ko c'est important mën nañ ci mën nañ ci yegg. mais waaye par nit di opposé wu. jàkkaarloo le problème bu rencontré président yooyu yëpp ci biir débat bi ci kanam mën nañ ko laaj dans quel contexte la ñu waxtaanee ma ñëw kooku ñoo ne ma Duda rek mel ni glace bi ko rencontré Macky Sall daf ko bëgg a jàppale ko wax man ko waxee doyu ma na ko waxal boppam na ko waxal boppam gars yi par rajo bu yaatu waay parce que dégg mukk laa message bi daa war a jàll mu dem président. je passe la parole à quelqu'un. quand même c'est important ah, sénégalais. utiliser des mots à mon président de ça m'a choqué et je le conseille.

ragal lu ma ko yow may waxal yaa ngi toj jaaxal mu fi nekk moom turam yow laa fi ne. moo dëgg yàlla loolu am Bougane tu as demandé Sall da nga xam nga lu ma problème li gën a bon ci àdduna bi. Mhm. liggéey ba yàlla jox la tolof tolof. li sàcc nga naan liggéey lu nga xam li wax ma sax xam ndax ñi tax nga Macky Sall Sarr la en contrepartie la bokk. man man Macky Sall daf ma recevoir. man Macky ma oui oui et oui je confirme oui. vous des des histoires. tu veux. vous racontez des histoires euh, xam nga xam nga Birima Birima j'ai accepté. yaa ngi ko déggoon door de. dégg nga voilà dégg nga. xam nga xam nga gars yi partagé leen mu gën a yaatu Bougane daa war a jot ci vidéo bi lii lii dañuy leeral rek. may ma may ma ma yeeg ma wax. lii soo gisee ñu koy def déglu leen rek. léegi ñaar ñëpp laay que da courage la conseil mm-hmm. sept chiffres mm-hmm. contraire jox conseil constitutionnel ne neuf chiffres la ko <laughs> ça je l'ai ça je l'ai on l'a montré dans la attends am xel. dossier déposé au conseil constitutionnel conseil constitutionnel répondre numéro de waneen la contraire de sa numéro bi baaxul mais doo génne benn non rek. ne baaxul mais yow yow yow yow s'il te plaît léegi déglu leen ma s'il te plaît. birima birima déglu nañ birima ja birima dama ko yërmande. birima déglu nañ birima birima birima danger pour la nation sénégalaise. devant tous les sénégalais devant un de justice. voix. signatures même à 24 heures. pour pour pour pour je, vais, vous dire. Ah, écoutez, mhm. Je vais vous dire une chose. Mhm. Je suis sur ce plateau parce que je pense avoir affaire à des personnes. Yo Bougan, yo, yo, yo. Birima li la wax Ni le teggi moi nii la mooy li ma wax léegi rek dégg ngeen wax Bougan, ko léegi Bougan. naa leen Bougane seeti na kii na ku ci Sonko bokku l'en yon, bokku l'en bul tëkkale sa bopp ak Ousmane Sonko da ngay daanu Ousmane Sonko kooku dafa pere soog a dugg ci politique te yow pere goo Sénégal yi mënuñ la déglu Sénégal yi mu maanaam bugaan li ngay politiquer nii moom la fi Macky Sall di politiquer moom la fi Abdou Diouf doon politiquer moom la fi Senghor doon politiquer genre politique boobu bugaan jàllatut changer le système. nga ñëw bokk ci patriote yi nga xeex pour Sénégal jugee koo ci mbuuma njaam gi defe naa ne loolu mooy li gën ci yow nga nekk fii di xaste naan da ngay xas usman sonk Ousmane sonk amul lu ko nit war a xasee parce que usman Sonko joxe na léppam joxe na léppam mu ngi def ay mbir yu am solo waa Pastef a ngi def mbir yu am solo di ko teg ci yoon su ñëpp defoon ni waa Pastef di ko jamono jii nii defe naa ne Sénégal day changé vacance su mbay maa ngi nii tey xale yu ndaw ñi ngi ci tool yi. di di bay bay yu am solo di jox ay idées yu rafet gis nga nit du question da ngay ñëw jox ko benn moto pompe naan ko jëlale nit da nga koy jàngal nu muy nappee xam nga doomu aadama doomu aadama soo ko bëggee da nga koy wan nan la mën a def pour génn ci Ousmane Sonko si solution boobu la nekk ak sénégalais yi tey jii ni lancé na mbay mi fexe ba encadrer ay sénégalais jox leen mbay mi wan leen nan ngeen di mën a def pour bay pour am dara ëllëgee ngeen mën a demal seen bopp di bay noonu la ñuy mais du question dem fii joxe fa 2000 dem fee joxe fa 5000 dem fa la joxe fa lii di ko bàkkoo di fëgg sa dina naan man joxe kat la ak di ci Sénégal soxlawul joxe kat Sénégal ku liggéey réew mi la soxla pour ñëpp yëg ci seen bopp. Bougane Gueye soo amul xam-xam tëjal sa làmmiñ te nga yem ci sa télé boobu ak sa rajo boobu yow ab animateur nga xaw ma ab DJ xaw ma ab lan yemal ci loolu noonu. mo gën ci yow fi may jeexalee nag mooy Aïssatou Diop Fall Aïssatou Diop Fall dembu deglu euh, dembu wa deglu naa ñu invité la ci ben télé xamna né sa xol dafa naxadi man comprendre na parce que ba ngay wax xamna né ne waxi xol bu naxadi nga lon wax yow Aïssatou Diop Fall amul lo yakut Sonko lo waxut Sonko dang ko faté waaw parce que génnoon nga fi attaquer Sonko bu fi genné attaquer Sonko gis nga li la ci fekk melentaanu sonk yi génn nañ dox sa kaw ba nirootoo nit nga génn rànkiñee ñi invité war la nga nekkaat di saaga sonko di ko wax lu nekk yow Aïssatou Diop Fall ñun duñ la tontu yow li lay tontu mu ngi sa kanam sénégalais yi amuñ sa jot amuñ sa jot yow nekkal rek di siisu di bañ sonko deful leen dara amul lenn lu ngeen mën a teg seen loxo na sonk xam nga nit man nit ku ma gëm mo wara taxaw di bañ nit da ngay bañ ko xamne man nga taxaw tek sa loxo dara na man kat ki def na ma li moo tax ma bañ ko xam nga ñin ñi ñi attaquer ni sax di wax ak ñom suñ attaqué songko sonko ñok ñom affaire nit ku la deful dara waro ko Songko sonko deful len dara soxor ak iñan rek mo len japp kese kese kese ak di sistem ci système bo xamne ne leer na len yalla bés bu système bi jugee ko da ngay ni torox parce que da ngeen di sàcc alalu réew mi di luubal alalu réew mi moo tax du ngeen nangu système boobu daanu loolu rek moo leen jàpp moo tax jalousie boobu moo nekk ci yéen moo tax mënu leen nangul président Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko incha allah ci kàttanu yàlla mbir mi day gën a yokk di gën a am doole Sénégal yi di ko gën a bëgg tey soo ñëwee Sénégal ñëpp Ousmane Sonko la ñuy béggee waaw. xam ngeen ci dara Sénégal ñëpp Sonko la ñuy béggee jeunesse bi ñëpp suñu yaay sax léegi xam nañ kan mooy Ousmane Sonko te bu njëkk xamuñu woon Ousmane Sonko. léegi sama maire yi ku ma wax mu ne ma ay sonko xale boobu baax léegi maire yeeg paa yi ñëpp sonko lañ waaw si Sidna Ousmane noo day dem de amul sikki sàkk ne amul werante ne sonko moo fi ne mu neex leen mu naqade leen benn opposition moo am Sénégal benn parti politique moo am Sénégal benn candidat moo am Sénégal dañ koy nangu yéen du ngeen candidat yéen du ngeen opposition parce que mënul leen nek seen ruq bay ba élection di ñew ngeen genn bu ko tankal sénégalais yi ta sénégalais jaar nañ fi ci coono bu nek sénégalais jankontel nañ fi bëpp xétu jafe jafé depuis élection yi ba légui sénégalais yaangi bëgg dé ben jëm rek lañuy gis moy Ousmane Sonko muy continuer di xex continuer di ñu défendre yow bugaan ngay dali kenn déggul la kenn gisul la nga bay ba tay ñew di song sonko mënul nga yem sax ci say joxe mode pompe nit ñi rafetlu nañ ko joxal say moto pompe dem sa yoon way nek fa di garu walé nan ay ñu woo la nga wara joxé joxé wo woo déglu leen la lu bëggaan ngay wax xama ma tegalaat leen vidéo bi ngeen déglu déglu leen. ay litre essence. dégg nga enveloppe yu dul jeex. loolu daa ñëw bëss bës té te na yi ñu la nga wu ci bëss ay <laughs> waaw dañu <laughs> dañu la nga wu ci bës. dañoo langaaw ci bës. dañoo <laughs> langaaw ci bëss ñu la wo nga wara joxé joxe. dëgg toogal yow da ngaa ñàkk fayda yow sonko kenn woowu ko sonko moom moo xam ne dafa war a dem woowuñ ko yow dañ laa woo da ngay wax ne man dañ ma woo pour ma war a joxe mais sonko kenn woowul ko sonko moo jug comme ni mu laan jugee di dem ci béréb yi nga xam ne jafe-jafe moo fa am Sénégalais di ko dund comme ni mu demee kasamaas ah ni muy demee Kaolack ni muy demee Kër Massar fu nekk lay Sonko di dem di taxaw Sénégal yi seen jafe-jafe yi kenn mosu koo woo ci dara moom moo xam fam la gis na ne Sénégalais yi dañ nekk ci coono mu jug di leen taxaw jug di leen dimbale looloo ko tax jug mais kenn woowu ko yow dañu laa woo yow dañ laa woo téléphone na la kaay joxe moto pompe mais ñun kenn du ñu woo ñun dañuy jug def li ñu war a def parce que xam nañ li ñu war a def waaw maa ngi jégalu ñëpp nag di wax ne xam nga dañuy continuer rek combat bi di xeex. di continuer di xeexal suñu leader benn parti moo fi am benn leader moo fi am benn opposition fi ne mu neex leen mu naqadi leen président Ousmane Sonko la léegi nag yéen mu Macky Sall ngeen waroon a opposé léegi opposition te leen Macky Sall léegi Ousmane Sonko ngeen ko langal Ousmane Sonko ngeen ko langal may wax patriotes yi di wax activistes yi ngeen jug taxaw takku ngeen xam ne xeex bi sax commencé gul barke alxuraani karim gis ngeen combat bii nii. ñi wara dal ci Ousmane Sonko jugoguñ sax yi ay wéccet la rek ñi ni di jugni ñu ndaw la rek mais combat bi sax commencé gul barke alcorane kërëm yebo ngeen juk takku taxaw lum leen jaral ñom nañu jaral luko ko ëpp lum ñi lum leen jaral pour ñi faagaagal Ousmane Sonko ñin nañu jaral luko ko ëpp pour ñi défendre Ousmane Sonko man loolu la gëm barke alcorane kërëm parce que addu kalpe bi lum ko jaral pour mu jël sa kalpe warna la jaral lu ko yow mi mom kalpe bi ba sa kalpe du dem moo tax mën ne la ñii commencé guñ barke alxuraani karim gaynde yi sax jugaguñ Ousmane Sonko ñu ko war a attaqué sax commencé guñ su ma ne la commencé guñ commencé moo tax patriotes yi dañu war a juboo dañu war a bokk ndey ak bàyyi ñëpp dañu war a ànd ñu xam ne cause bi ñuy xeex dafa noble te ñu ko séqal ay bandi lañ ay saay-saay lañ ñu ko séqal ay ay manipulateur lañ ay nit ñoo xam ne lañ matériel lañ gëm ak alalu àdduna ak xaalis Sénégal changé Sénégal développé taxul leen jug ñorul leen sax ñoom ñu am ak tedd ak nekk ci nguur ci loolu la ñuy dox moo tax mën a leen foog ñu bokk ndey ak ñu ñi jéem a bokk xeex bi jéem a bokk benn force ñu xam ne lii ñuy xeex ni dañ ko war a gañee barke alxuraani karim gis nga xeex bi su essayé yeboo ñu xam ne ñun Sénégal dañuy torox ba abadan barke alxuraani karim man maa lay wax lii ñun ñun ñun dañu war a delloo si waat suñu réew parce que suñu diine perte nañ ko suñu aada perte nañ ko suñu cosaan perte nañ ko ñun Sénégal dañoo perte lépp te Ousmane Sonko rek lañ gëm ne moo war a mën a delloo si mbir mi suñu diine dañ ko war a récupérer waat dañoo war a récupérer waat suñu cosaan dañu war a récupérer waat suñu aada dañoo war a récupérer waat suñu réew tegaat ko ci loxo maam yi teg réew mi ci ñi nga xam ne nii tey mooy suñu maam yi nga xam ne ñooy suñu référence ñun dañu war a delloo si waat Sénégal mais benn groupe ñoo fi nekk muy groupe boo xam ne depuis 1960 ba léegi ñoo fi nekk di tong tong réew mi muy benn système ku bokkul ci système bi doo tedd ku bokk ci système bi tedd ñu nekk ci loolu di xañ sénégalais yu dund di xañ sénégalais yu faju di xañ sénégalais yu lépp loo xam ne seen àq la ak seen yelleef la depuis 1960 nag ba léegi ñoo fi nekk di manipuler sénégalais yi Bougane Gueye Dany mii fu Youssou sundur dëggoon tànkam foofu la bëgg a dëggaat tànkam rek fekkee ko ci boole xam nga Youssou Ndour moom daa ñëwoon na fekkee ma ci boole Youssou Ndour sax tene na woon parce que moom woote wutoon moom daf fekkee ko ci boole waaw maanaam nag bi nag bi ñu war a sédd séddale Youssou Ndour ñëwul na fekkee ma ci boole ci nag bi mais ba ko ci fekkee fekkee boole daggal nañ ko wàllam ci nag bi Youssou Ndour tey teleem bi mooy tele bi ëpp doole ci tele Sénégal la lan moo ko may parce que droit yi nga xam ne moom la tele yi war a fay Youssou Ndour du ko fay Youssou Ndour day encaissé mais du joxe Youssou Ndour milliardaire la jamono ji mu toll lépp lu tele yi di xëccoo su Youssou Ndour ñëwee da ngay ñàkk parce que xaalisam gratuit la koy dikkee moo lay xamal ne foofu la Bougane Gueye bëgg a patoxlu bëgg dëgg tànkam pour am loolu yusundur sundur am mais Bougane gay nekk président Sénégal yittilu ko gay man ta nekk président Sénégal moom xam na ko sax parce que yorul qualité bi yorul charisme bi Bougane Gueye li muy lan lay wax ak Sénégalais man Bougane gay su ma ko xoolee sax malien laa koy fo man fooguma ko sax ab sénégalais xam nga ñooñu ay teqel lañ ñooñu dañ bëgg waxu waaxu sénégalais yi dox ci seen biir mayen pour am dundugu neex te duñ liggéey di tedd loolu rek moo leen tax moo tax ñoom Bougane Gueye Dany nii ñii ñoom ñëpp ak consort googu dangay gisaat ñeneen génnaat xam ngeen Bougane gi Dany moo génn tey songu Sonko seetaanaalaata ba ci kanam da nga gisaat ñeneen leader yu génnaat song Sonko noonu rek lañ fiy nekkee ak Sonko noonu rek lañ ko fiy nekkeel mais Sonko nag naa leen xamal leen bokkut ak yéen parce que Sonko Sonko Sonko bokkut ak yéen parce que Sonko dafa dëggu dafa neex a défendre da leader bu neex a défendre la. Ousmane Sonko ku neex a défendre la xam nga olof Ndiaye def na sooy fonk fonkal nit ku jub sooy bëgg bëggal nit ku jub ndax nit ku jub moo neex a parce que du la gàccal Ousmane Sonko dafa neex a ñun de dañuy sant yàlla man ba ma dalee défendre Ousmane Sonko ba léegi jàmm rek laa ci gis ba ma dalee défendre Ousmane Sonko ba léegi nit ñi di ma bëgg di kontaan ci man di bëgg ci man loolu rek laa ci gis mais mosuma défendre Ousmane Sonko dajeeg nit mu naan ma sa leader bi de gàccal na ma parce que xaalis bi mu sàcc sa leader bi de liñ koy jiiñ mosum mosum maa dajee nit ba mu wax ma loolu ba ma dalee défendre Ousmane Sonko chaque jours ma gis ku ma jox ñaari loxo na ma billaay sa waa ji jàmbaar la man da fi mu ne nii moom maa ngi sa waa ji chaque jour ma gis loolu chaque jour ma gis ci lu bari ñi ma jox loxo na ma billaahi maa ngi sa waa ji léegi man moom jeex na moo tax défendre nit ku nekk ci dëgg ak nit ku jub dafa neex dafa neex man du ma défendre nit nit koo xam ne day signaler gauche di jàdd droite luubal alalu réew mi sàcc tey ñu jàpp ko ci sub man du ma défendre genre nit ñooñu ñun Sonko la ñuy défendre parce que loxoom set na yéen ñi nga xam ne nag yéen a fi nekk ñi leen di gëmloo naan leen ay bés bu toogee du ko def ay bés bu toogee noonoo day wax nii rek affaire yooyu noonu d'accord am ngeen ci plein droit sax loolu ngeen gëm parce que politiciens yi fi yàgg a nekk loolu lañ mos a def dañuy wax wax wax wax wax bañ fal leen ñu toog nekk ci lii nekk ci lële mais dama leen bëgg xamal na leen yéen Sénégalais yi ñëpp yemuñ te ñëpp mënuñoo bokk nekk benn. parce que ñëpp suñ bokkee nekk benn yow yowmal xiyaam dana am ñu riposé buntu àjjana parce que barke rasulaay dana am ñoo xam ne dañ taxaw laaj seen vérité pour yàlla jox leen ko. yàlla ni baaraam yu utee noonu la doom aadama yu utee man Ousmane Sonko suy gars yi di wax politicien man dama ciy génnee Ousmane Sonko man dama ko ciy seppi tegee ko nale Ousmane Sonko du politicien Ousmane Sonko politicien du politicien Ousmane Sonko l'homme de solution la maanaam nit bu ñëw pour solution. manam ku ñew pour indi solution ci jafé jafé askan wi la politiciens ñun niñ ko jappé ñun Sénégal ak niñ xamé politiciens moy ko xamné waxam galaas lay nek day génn frigo bi seey moy li fi Macky Sall def Abdou Diouf def ko fi Abdoulaye Wade def ko fi ki def ko fi ñom moy loolu moy politiciens politiciens ñom dañuy politique pour am xaliss ñun nak dañoo ñew pour politique pour défar Sénégal dañu ñëw politique pour dimbalé sénégalais yi dañu ñëw politique pour xéxal sénégalais yi politique bobu ak politique bi politique saint sénégalais di def Nekul ben, motax tax suñuy wax mon Sonko politique saint la bu ko ko classer ci catégorie bobu man damay bañ man bëgg bàyyi dama politik leen déedéet Ousmane Sonko du politique saint bobu bu leen ko classer ci catégorie bobu Ousmane Sonko su ngeen koy classer ci catégorie ah da ngeen koy classer ci ñom Thomas Sankara Mohamed Kadhafi ak Cheikh Anta Diop Mamadou Dia Ousmane ko ci catégorie boobu la bokk bokkul ci catégorie bii catégorie bii mooy doomu tubaab yi catégorie doomu tubaab yi mooy ñi nga xam ne tubaab yi ba ñi mayee indépendance dañ leen woo ba ñu ñëw ñi ne leen kaay leen ñu dénk leen réew mi ñoom tubaab yi ñoo leen dénk réew mi na leen sàmmal leen ma suñu kàddu sàmmal leen ñu suñu éducation sàmmal leen ñu suñu xaalis sàmmal leen ñi lépp loo xam ne ñun ñoo ko moom ñun nasaraan bi ñu teg ko seen loxo na leen sàmmal leen ma ko li leen tubaab bi joxoon ba mu fiy loolu lañ fi sàmm ci réew mi looloo fi ëpp doole muy góor jigéen ak caga farmason seen làkk français bi seen xaalisu français yooyu lañu sàmm mais sàmmuñ suñu aada sàmmuñ suñu cosaan sàmmuñ suñu diine sàmmuñ ngor gi sàmmuñ lenn loo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom tey jii nii sénégalais yow sénégalais yaa gën a dellu ginnaaw ci suufu Sénégal français bi tey moo ëpp doole ci suufu Sénégal parce que ñoom li leen tubaab bi bàyyee moom la ñuy sàmm ñun nag dañoo soxla président boo xam ne su ñëwee. intérêt Sénégal lay sàmm intérêt Sénégal lay sàmm intérêt Sénégal ci lay dox ci lay dëgg tànkam ñun genre président boobu lañ soxla léegi boobu nag du yomb moo tax attaques yi dañuy jógee ko fu ci nekk parce que ñoom ñëpp ci système boobu la ñuy dund mooy système bi leen tubaab bi bàyyee woon muy parti politique yi nga xam ne mooy parti politique 1960 yi mooy gars yu xeew yi wëri leen leneen Assane yow du ma damay wax rek Assane Sylla moom chaque jour mu génn son song Sonko pour Idrissa Seck mais Assane Sylla benn conseil laa lay jox man Assane Sylla kanaa xamoo yow man dama laa naw man dama laa gëm yow Assane Sylla mais bala ma loon xam ne yow Assane Sylla ku gëm sa bopp nga Assane Sylla doo posé candidat ngir yàlla yow yow yow gars yi wateel la yow parce que damaa xam ne yow Assane Sylla da ngaa sonn ci sa Seck te yow Assane Sylla Idrissa Seck mi nga xam ne yaa ngi wax ci moom guddeeg bëccëg mu ngi ci paxu kañam wala nga dem ci paxu Idrissa Seck bi soti fa ndox parce que kañan suñ ko soté ndox day génn ndax dana génn sax mu tene wala yow Assane Sylla sax nga poser candidat nga nek ki parce que da nga son yow yaangi waxal Idrissa Seck guddi di ko guddi di ko beuk bëccëg Idrissa Seck mu ngi melni ku muma mais yow porte parole Idrissa Seck nga wala yow Assane Sylla lanu idiri nga Idrissa Seck nga mais porte parole kañ kana kañ yow kulay wax lo sax war nañ ko gis mu lay lo mais yow Idrissa Seck guddi Idrissa yow doo posé candidat sax yow nga nekk leader man man Adan Sylla ngir yàlla barke Rasulullah soo nekkoon leader man ma woteel la. billaay wallaay gis nga Adan Sylla yaa waroon a sax taxaw na léegi man maay Idrissa Seck sax gars yi man man am na gars yu bëri sax dañ lay jaawale Idrissa Seck am na ñoo xam ne sax dañ naan est-ce que kii du Idrissa Seck ma ne leen xam naa moom la. parce que yow ki ngay défendre du génn ku ngay défendre du wax ku ngay défendre mu ngi ci ruqam toog lijjantiwut Sénégal Sénégal ñoru ko faalewut sax Sénégal. yow asan sila gudeg bëccëg yaa ngi ci di défendre té yow rek ci dess nak gaay yu ma gisoon ñi défendre Idi ñepp lem nañ seen bagage dem parce que dafa neexut kat ngay défendre ko du genn di défendre ko xam du wax du défendre ko xam kenn xamul fan la laqut kenn xamul lu ko dal lan la yow do genn nga dëggal sa bop nga am sa fulla fi fide mais Sonko dafa am fullaam ak faydaam rek dëggal bopam asan sila war nga mën a sa bop parce que nak wax deug yalla nga wax man nga fenn man ngaa duul jégale sa bopp nga fen comme ni ko ñoom Bougane Gueye di defee ak ñoom Macky Sall ak ñooñu Assane Sylla nga génn di fen rek génnal fen da nga am ay militant lu mu dee dee da nga am ay da nga am militant sax yu la bëggee moo gën nga nekk fi naan ña idi guddi idi bëccëg Idrissa Seck kooku fekkee moom nga yaakaar demal nga wëri leneen Idrissa Seck su amee beneen métier bu muy def nekk mu dem defi ko Idrissa Seck daqaar du saf ñaari yoon di sa Seck yàlla da koo tàcc mu moo mu waroon a fecc te feccut su la yàlla tàccee feccoo dootoo feccati ba abadan sa Seck kaalaam la yore di kaalawaatee dafa kaala ba kaala bëtam yi nag looloo ko sonal Idrissa kaalaam gi la kaalaa bëtam yi looloo tax du gaaw falu senegal parce que moo yàqal boppam Idrissa Seck kenn yàqlu ko Idrissa Seck moo fi taxaw ah, moo fi taxaw na diil lay def def deal Idrissa Seck moo fi taxaw def fi deal ak Ablaye Wade ba Sénégal yëpp ba ba ko sa Seck moo fi génnaat ñëpp commencé waat di yaakaaraat ci moom mu jékki-jékki waat na kaaba gi dañ ko war a toxal yóbbu ko ah, fële euh, màkka bàkka affaire yooyu noonu nit ñi génnaat ci moom sa Seck nekkaat fi di defar ay affaires yoo xam sa Seck moo tojal boppam li benn sëriñ waxoon avant élection yi vidéo boo publié woon naa ko sax sëriñ bi dañ koo interroger ci Idrissa Seck mu ne Idrissa Seck du falu Sénégal ñu ne ko lan mo tax nga wax lolu mu ne Idrissa sek ci jëmmi bopam dafa am lu nekk ci mom dafa togn ab wëlliwu yalla Idrissa sek dafa togn ab wëlliwu yalla te warna dem jéggalu ji len comprendre xoma nak ban wëlliwu yalla la Idrissa sek togn man xoma ban wëlliwu yalla la togn mais serigne boobu mom loolu la wax neena Idrissa sek dafa togn ab wëlliwu yalla ta dafa wara dem jéggalu len légui wëlliwu yalla bobu Idrissa sek togn comprendre motax heure bu yakare ba yakaram taxaw day te boobu Idrissa Seck waxagul màkk ak bàkka de sëriñ boobu ba muy def loolu Idrissa Seck waxagul bàkk ak bàkka journaliste bi ne ko mais loolu nan la mën a demee Idrissa mu ne ko déglul Idrissa Seck xam nga fi ne ñëpp koy coow mu ne waa mu ne bàyyil ba ci kanam léegi nga déggaat Idrissa Seck def fi toj toj boo xam ne ñëpp génnaat ci moom yàggul dara Idrissa Seck indi fi bàkk ak bàkka coow li na kur ma ne waaw waaw sëriñ bi bëri na xam-xam de kii li mu wax ci Idrissa Seck moom yéeme na di te nii la amee moo tax ma gëm lu koogu wax na Idrissa Seck dafa tooñ ab wëlliwu yàlla Idriss Seck na xaw ma ban wëlliwu yàlla nga tooñ demal nga jéggalu ji ko moo gën soo ko xamee <laughs> jéggalu ji ko moo gën ci yow yi ngay def nii yëpp dalay sonal tey nga nekk Tidiane suba nga nekk Murit ginnaaw suba Ibaadu ginnaaw suba euh, Laayeen ginnaaw suba Njaasaan yooyu yëpp dalay sonal yooyu yëpp dalay sonal parce que yooyu du jàll waaw parce que yooyu loo ko gëm-gëm fekk nga ñu ci ñu ci jeex tàkk foo dem fekk nga looy dof dof lu na damaa gëm fekk nga ñoo xam ne dañoo jeexal dañoo gëm ba jeexal toog pour yooyu du so soo koy politiquer du jàll xam nga yooyu non yeb du jàll kon Assane la dimbalal sa bop ngir yalla nga poser candidat gars supporter la parce que ñun gëm nañ ne man nga fen yow asan Sylla sa fen yooyu non defal ni gars rek di fen rek defal ni gars di fen soy fen non gars man nañ la soutenir jappale la lool moy deug gars ma ngi jégal bëgguma won sax live bi gudd xam nga dama ñëw rek di wax ci xam nga gars nga xam dañ fi nek di wax ay waxi dof ñi leen ni leral na leen xam nga waxi dof mom du jàll wa waxi dof mom waxi dof lañ koy considérer parce que li ngeen ni wax du jàll sonko mom beus ngeen ci ul rek mais xam ngeen na sonko leen gën yeen su ngeen teddé ba diggu guddi sax seen ngegenaay tax barke rasulullah xam ngeen na sonko du seen morom su ngeen teddé sax xam ngeen na sonko bokku leen boy bi jantal na boy bi amna fit boy bi waaw limi wax maîtriser nako boy bi xolal jantal men la neexna bëgg waaw ñun ñun boy bu ndaw la nak waaw la xalé yi jeunesse bi ñoy mujjé réew mi de xalé yi lañ soxla ñi tabax réew mi barké rasulullah réew yu développé yépp xalé yu ndaw ko tabax parce que lay léeg ma dégg ku naan non ko xalé la quoi expérience bi ñëwagut ma ne leen yeen lan moy expérience expérience su sacc ñun de suñu jitu réew yi fi jaaré yëpp expérience su sacc lañ yoré ñom ñëpp ay expérience su sacc tay gi ni ku la ëpp expérience si gouvernement soo ko soo xoolee suñ ko jàngatee milliardaire la expérience u sàcc <laughs> non expérience sàcc ñun soxlawuñ ko ñun expérience bi ñu soxla mooy da am xam-xam bu war a mën a jëmale ci sa réew te Sonko wan nañu ko gis nañ ko doy nañu ñu jàpp ci moom amul werante wari leen leneen barke rasulaay wari leen leneen Sonko rek 2024 ci kàttanu yàlla barke alxuraani karim kun Sonko li ma lay ñaanal mooy gudd fan ak wér ñaanal la yàlla yal na la yàlla làq fu yàq yeggut musal la ci noon yi iñaan yi soxor yi loolu laa lay ñaanal di la wax ne nag sonko bul di tontonte ak ñoom ay bugaan gay yëpp bul di waxateeg ñoom tonton sonko ngir yàlla war a suul yi ñun patriotes yi ñoo la koy ñaan bul wax waxateeg bugaan ngay parce que doo kalaasam bokku leen école bay bokk classe école bi sax bokku leen ko bay bokk kalaas bokku leen niveau ñun fañ lay xoolee yow sonko xoolee wuñ fa bugaan ngay ñin fañ la tek teguñ fa bugan gay ngir yalla sonko bul tontonti bugan gay bugan gay gem gem lu sa bop bu ko tontoti gemut bopam da lon gem gem lu bopam rek legi sénégalais yi dem nañ ba xamne gemul sax bopam bu ko tontoti parce que tojur fenn mom bugan amul lenn lum def ci réew mi lo xam kana kanaa sàcc alalu sénégal ji waaw ñu ne ben sëriñ ko lon denk xaliss sëriñ bi genn aduna buggaan tëdd ci xaalis bi nekk milliardaire soixante mille la doon fayee ko salaire buggaan gee yàggu dara wal fajari soixante mille ak yeneen télé ak rajo yi ak te ak rajo Golbert Diagne bi bu ndar bi rajo Golbert Diagne fa la newoon mais waxante dëgg salaire u milliard amul senegal salaire bu mën a maye milliard amul senegal salaire boo xam ne ñu ne waa ji salaire lay fayeeku ba nekk milliardaire amut buggaan gee amul benn business bu mu loon def lu dul salaire la doon mu nekk milliardaire kun lan lañuy wax suñ ko audit daan ngay suñ ko won tej ko ci kasso wi ñi taxaw mu naan ay non non da ngay wara joxe dañ la wo nga wara joxe joxe wo yow da nga wara joxe yow liñ joxe yow ñin ñi joxe suñu ruuy jox ko sénégalais yi joxe suñu deret jox ko sénégalais yi joxe suñu xol joxe suñu ngëm joxe suñu dëgg ñin lepp lañ joxe bugaan suñu jëm yi ngay gis ni ñuy dox rek mais tay la nañ suñu lepp sénégal jox nañ ko sénégal yow ngay li joxe liñ joxe xajut ci poos liñ joxe xajut ci poos Bougane te loolu la Sénégal soxla ku ko jox Sénégal xam nga lan la soxla ku ko jox ku ko gëm la soxla ku ko bëgg la soxla ku ko yërëm la soxla ku koy dimbale la soxla Sénégal loolu la soxla nga nga jox ko defe naa ne nag nga wax ak Macky Sall yow Bougane moo ëpp solo téeméeri junne yoon ngay wax ak Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko dénkuñ ko réew mi dénkuñ ko keesu réew mi yoroogut Sénégal waxal ak sawaay fekkee da nga ragal sawaay di ñëmé Ousmane Sonko danañ la tek sa place da nga ñëmé Yalla ragal alkati, yow gan ngay dalé xam nga Sonko nga ñëmé ñëmé Yalla ragal alkati, parce que Macky Sall day tëj sa télé bi xam nga xam nga liñ lay wax bu baax Macky Sall mom soo koy muy tëj sa télé bi nga wayé di da sa télé bi moom su tëjee su tejé nga wayé di ngay song nak sa way lolou <laughs> du jallo ma ngi jégalu ñep gaay fi la yemalé live bi bugguma won mu gudd sax xam nga dama bëggon def live bu gatt rek mais comme xam nga Bougane gay so ci wax sa yaram day tang parce sa xol day bon parce que ya ma gëna xam waaw ma ngi bëggé ñëm nak di xiaré ñëm man la bëgg bañ kat bëgg xex kat dañuy xex rek waaw xex rek xex rek ba kérok ñi am dëgg ba kérok ñi am dam ci kàttanu yalla duñ ci mos a ginnaw duñ ci mos tit duñ ci mos yox yox yi barké alcorane karim One Love sonko ci kanam ñeneen ñi ci dess ci suuf yaa ngi jëf abonnez-vous à la scène qui vous ressemble et qui vous correspond Nianthio Média Vision l'œil du delta du salon. qui vous correspond Média Vision l'œil du delta du salon.